yéene cee dalal Seydina Omar Ba ñu ngi lay nuyu kilifa la fay Abdoulaye naka uh, suba si alhamdulilah maa lay seen sànq ci télé ba waaw yaa de ne ci solo rafetati na merci beaucoup rafetati lool kilifa gi jërëjëf dinaa wax madame ne liggéey nga. da ngaa baax rek da baax rek quoi. Eh, dinañ jokkoo ak madame Ba ne ko kilifa gi liggéeyati na. na quoi. <laughs> am na ci solo. jaajëf jërëjëf Seydina xëyee dafa si waat ci élection présidentielle 2024 yi ñuy dëgmal yéen gi ne neexul ba neexul waaye fu mu toll yi ñu ngi nekk di wax ci problème problème plan gi moo koy fësal lu ni mel. bu mhm. sukkandikoo ci docteur Diallo Diop doon kenn eh, doon kii bu eh, ah. dafay bokk ci élection yi lee ah. euh, lancement parti bi wax na xamal amal na ko wax na euh, li nga xam di programme am euh, ngi ci yéene kaay gi di Walf Quotidien Abdoulaye yor yor bi la yéene kaay gi di dafa xëyee dellu ci Ousmane Sonko sonkorisation de l'espace public noonu la ko yéene kaay gi xëy fësale yéen kaay euh, euh, euh, kii di yor yor xëy fësale yéen kaay bi di 24 heures dafa xëy samp laaj bëgg xam Bamba ndax président lay doon noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale tigi sax président la ndax samp na dem jëm ci élection présidentielle yi ñëw moom Bamba Dièye ma ngay fësal programme moom mi ngi

ni jamono ji toogul ma nga sol ay dàllam dugg si suñu ñaay euh, moom Bougane Gueye Dany ma ngay fësal daal yoon wi nga xam ni fa la war a jaar ngir euh, mën a teg kon Sénégal ci yoonu yokkute noonu la ko yéen a kaay gi xëy fësale jaarale kon suñu wàllu mbay mi. yéen a gii di critique xëyee dellu ci démocratie sénégalaise bi nga xam jamono ci tey jii gën a taxaw ni la ko yéen a euh, di euh, réew mi teg ci di réew mi dafa xëyee dalal maître ma soxna kan ci waxtaan yi nga xam yoon na ko seex suñu naata ngoo ci réew mi

am na si bu fekkente am ñoo xam musiba leen mën a jural waaw am na si ñoo xam ne nga da lay doon si ñoom mooy ñi nga xam ñoo ñoo nekk ci frontières yi di eh, xale yi pour ñu doon ay ay ay ay ci frontières yi ne moo xam ca Niger la moo xam ca Nigéria la moo xam daal eh, ca Mali la Burkina Faso ñoom daal fa la ñuy taxaw rek def góolu xale yi ku si ñëw ñu proposé la xaalis ngir mën laa engagé nga doon ab jihadiste noonu la ko yéen kaay gi euh, ah. la ko tëjee xëy fësali Abdoulaye Nicaragua bi laataa ngaa jaar fële ci Honduras Guatemala ak fële ci Mexique am na ci nag ay sénégalais yoo xam jot nañoo rëcc ku ci mel ni Doudou Sène mm-hmm. Doudou Dieye mm-hmm. ñoom ñëpp ñu ngi joxe seen xalaat ne nag yoon woowul nag donte le sax am na ñu bëri ñu ngi fay jaar waaye ka fay dem aussi na waajal boppam ndaxte euh, foofu dëkk la boo xam dëkk bandi la ndaxte mm-hmm. dëkk drogue la euh, boo fa demee daal lu nekk mën na la faa dal noonu la ko a xëy Euh, Ablaye dëkk boobule euh, fël la ñu waree woon kii di Jésus Christa li ko waroon nag moo di Juda noonu la ko yéenekaay gi di la Soleil xëy fësale yéenekaay bi di stade wax ci final euh, coupe du Sénégal Jaraaf Stade de Mbour Jaraaf kon mujjee naa gañ Stade de Mbour ñaari bal ci benn mu nekkoon nag match boo xam ne bu ala doome la woon donc yéenekaay bi di suñu wax ci combat Gris Bordeaux ak Ama Baldé mujjee nañ koy gaa yi waxtaana pour dàq ko hmm. ba ci weeru janvier ci atum 2024 Euh, léegi waa Gris Bordeaux Ama Baldé xam nga ñu ko mm-hmm. waroon jàpp ci weer wi mm-hmm. waaye maanaam ci weer yi ñëw waaye dañ ko mujjee gaay ngi waxtaan mm-hmm. pour jéem koo randal ba ndiki weeru sang wécc at 2024 léegi nag bu fekkente ne loolu am na moom mi di li ko Nicolas dina am roue libre maanaam dina am temps organisé combat bi nga xam ni moo war a ci diggante Modou Lô ak Ama Baldé ñu jàpp ko ni ki juróomi fan ci weeru novembre ma ngoog euh, daa mel ni léegi combat googu taxaw te yàgg nañ koo togg ba léegi euh, munagul sotti dañ ci dikkaat incha allah na mu gën a yaatoo